ci la ñu ko mandat dépôt démb la ñu ko doon atte waaye nag bi ñu ko laajee nee na moom en tout cas li nga xam ne moo tax mu bëggoon a def loolee dafa bëggoon a rey Macky Sall bu ko defee Sénégalais yëpp daal di ciy jama ba ñu ko laajee ne ko lan mooy jubluwaay bi nee na moom def na Europe lu toll si juróom benn ci at waaye musul réaliser dara nee lépp loo xamante ni laal na ko mu daal di la ji maanaam nag amul lenn loo xam ne ma ngi koy def daal ba mu sotti dundam gi daal met métti la dundam gi daal di jafe lool mu jàpp na nag société sénégalaise moo ko ko daal di teg moo taxoon mu bëgg ki nga xam ne mooy personne morale bu société sénégalaise di Macky Sall Sall waa ji nag journal bi nee na dañoo dem ba nga xam ne mujj gi sax dañoo jàpp ne àndatut ak xelam yéen kaay gi de la turbin xëy di ñu xibaar naan ñu accident yi nga xam ne mooy am ci réewum Sénégal ak ñi nga xam ne ñoo ciy faatu jamono ji lim bi sunu xëyee muy gën di yokk ci atum 2017 jàpp 2020 bi ñu ko xaymaa lu toll si ñetti junni nit ñoo xam ne ñàkk nañu seen bakkan ci accident yi yéen gi di Vox Populi xëy di ñu xibaar naan ñu Mame Makhtar Gueye bu ONG Jamra ak ñu bari ñoo xamante ni niki suba si àjjuma ji ñoo ngi waajal ab toogaanu ñaxtu manifestation maanaam mobilisation ci place de l'Obélisque ngir nag li nga xam ne moom la Israël di def Palestine loolee la ñuy ñaawloo ak lu jëm ci wàllum góor jigéen ci Sénégal yéen a gi di réew mi ko di caa xëy dañu xibaar naan ñu waa Touba nga xam ne mooy Cheikh Omar Diagne ci kàddu yi nga xam ne yëkkati woon na ko ci Serigne Touba Khadim Rasoul tey ji ab conférence de presse danañu ko amal ci Touba yéen a kaay gi di l'Observateur xëy dañu xibaar naan ñu mbiri Ousmane Sonko ak Adji Sarr ak ñi nga xam ne ñoo ci ñàkkoon seen li nga xam ne mooy ab commission ngir na xool ana ñan ñi nga xam ne ñoo si ñàkk seen bakkan waaye journal bi nee na enquête ba jamono ji nag maanaam point mort demul ci nga dikkul mbay laar yéene kaay gi di laas xëy dañu xibaar naan ñu Macky Sall dafa bëgg a testé boppam xool nag ba xam nag fan la ko Sénégalais yi def moo tax Macky Sall dafa bëgg a amal li nga xam ne mooy ab tournée économique ci monde rural bi yéene kaay gi di source nee bi jamono ji nag ñoo ngi waajal bu baax a baax li nga xam ne mooy élection locale yi ndax Khalifa Sall di di Mamour Diop Decroix di Aïda Mbodj ak ak ñeneen ñoo xamante ni niki démb ci àllarba ji gisante nañ Macky Sall ngi gisante ak a Seck nee ma mbuur ak soow yéene kaay gi de la turbina nee na élection yi nga xam ne moom la ñu dëgmal opposition bi ma ngi koy waajal waaye tamit Macky Sall ma ngi koy waajal ndax nag ci loo xamante ni lu kenn yëgu la ñi nga xam ne ñooy waa réew mi ak waa APR ñoo ngi waxtaan ci seen biir xool na la ñu gën a loxo maanaam ci élection yi ñu dëgmal yéene la nga kaay gi di réew mi ñu koy fekk Moustapha Assane Samb xëy na wax ci sommet bi nga xam ne Emmanuel Macron moo ko organisé woon ngir nag réew yi nga xam ne ñoo nekk ci dëndu Afrique sommet boobe nag bëri na ñoo ni daal nañu koy ŋàññi ndax ñenn ñi dañoo jàpp ne sommet boobee réewu yi ñoo ko waroon a organisé seen bopp te bu ñu koy def ñu defee ko fi nga xam ne maanaam mooy ci Afrique Assane Samb nag nee na réew yi nga xam ne ñoo nekk ci dëndu Afrique dafa am benn jafe-jafe boo xam ne moom la ñu am ndax bu ko benn réew ci dëndu Afrique organisé woon dina bëri ay président yoo xamante ni du ñu ñëw maanaam président yi ni ñu demee menn réew moo ko organisé si Afrique président yi duñ ko wuy jee noone beneen bi nga xam ne moo si am lu gudd gàtt mooy France jamono ji ma ngi boole réew yi nga xam ne ñoo nekk ci déndu Afrique yéen kaay gi délibération xëy di ñu xibaar naan ñu ca Togo ca Lomé dafa am am ndaje moo xam ne ña koy fekkee ëpp nañu ñaari téeméeri nit ñu fas yéene faa waxtaane li nga xam ne moo jëm ci wàllum éco ñaar fukk fan ak juróom benn ci weeru mai wi nga xam ne moom la ñu dëgmal Ousmane Sonko njiitul Pastef war naa bokk sax ña nga xam ne danañu waxtaane lu jëm ci wàllum éco waaye nag Ousmane Sonko ndax dinañu ko bàyyi mu génn réew mi ma nga ci ab contrôle judiciaire yéenekaay gi ki nga xam ne mooy ab avocat ma di maître Bamba Cissé bind na parquet bi nee ma procureur waaye nag procureur dafa lànk jamono ji nag mbiri Ousmane Sonko ma ngi ji nag taabalu juge deuxième cabinet bi nga xam ne moo yor dossier ba yéenekaay gi na li nga xam ne moo dal Ousmane Sonko moo dal ki nga xam ne mooy Cellou Dalein Diallo ndax ndaje moomee Cellou Dalein Diallo moom tim waroon na ko fekke waaye nag bàyyi wuñu ko benn yoon mu génn fi nga xam ne mooy Guinée Conakry ndax nag fukki fan ak juróom-ñett ci weeru octobre 2020 ba léegi Cellou Dalein Diallo Alpha Condé bàyyiwu ko mu génn réew ma yéen i di Stades xëy duñu xibaar naan ñu Paris germain ni ki démb jël na coupe de la France bii moo nekk fukk ak ñeenteelu yoon boo xam ne ma ngi koy jël yéen i kaay gi xëy duñu xibaar naan ñu Juventus de Turin ni ki démb jël na coupe d'Italie waaye nag jamono ji li ko war a moom Juif ñoom Cristiano Ronaldo maanaam ñu jéem a fas jom ngir nag qualifier ci Ligue des Champions lépp dina leer dimanche bi ñu dëg ma la yéen i kaay gi